parti socialiste euh, am na sax benn journaliste bu ma dégg mu naan Wilane na leeral ci fan lay waxee ndax ci kaddu boppam lay waxee. Hmm. wala ci kàddu parti socialiste mais su ma juumul defe naa moom mooy euh, moo yor seen communication su ma juumul. Hmm, kàddu boppam lay waxee. yow loolu leer na la. waaw waaw d'accord kon loolu révélation di nga ci ñëw mais en tout daal. Euh, maa ngi wax léegi ne bi ma xëyee gis ko sama galerie mu bari. Hmm. demoon naa ba tiit sax ni euh, lu jot waa mbaa jàmm la. Hmm. bi ma xëyee ci xibaar yi laa doog a yëg ni kat ndeke waa ji parce que man weekend bi damaa déconnecté woon. Hmm. bi ma xëyee laa dégg waa ndeke wax ni troisième mandat bi ni nag saa yi. bul jéggi borne bi noo gisee Wilane. waaw Wilane de mooy porte de sortie la bëgg wala. porte lan sorti leeral la li nga wax bala ngaa dem maanaam nee nga ci kàddu boppam lay wax kàddu boppam lay wax waxewul ci socialiste waaw waxu ci parti bi loolu fa ci maanaam ban firme nga ci am man kay loolu rek man ah, kay ni loolu rek affaire da bu fekkee dafa hélas de du ma jox hélas de day yomb yow boo ne ci kàddu boppam la waxee léegi yow ma jox ma xabaar yi xam nga yow da ngaa laaj da nga ne xawma ba xam si parti bi ci kàddu boppam la wax moo tax ma ne léegi leeral déedéet may leeralal laa leeral lu tax nga ne ci kàddu boppam lay waxee waaw mooy li ma la wax ni non li ma wax du dëgërul. dëgër na de pourtant. déedéet man su ma nee la as saa njóogu moo jël kaas bi ne woon fii. Ah. Euh, nga ni ma jëloo ko dinaa la wax ay firnde yu tax saa moo ko jël. déedéet loolu du firnde de loolu c'est jamono yow kon da nga koo wax nii rek jamono da kaa ñaar yooyu nga bugg a boole bokkuñu de <laughs> da nga ni daa waxe fii wala fee a waxee man de fii la waxee loolu kay doy na hélas ah alaaj loolu doy na la yow. très bien doy na ko doy na la. na ko. Eh, hélas doy na la ah, kon baax na. da nga yow da nga yow da wax da nga ne. maanaam kii da ne xaw ma ndax nga ne ko ci la. waaw donc da nga war a indi firnde. waaw da nga war a indi ci kàddu boppam lay waxee. kàddu boppam gi lay waxee. waaw léegi ñëwal. comme nangoo leeral li wax si kàddu boppam it ñun duñu ko nangu. yéen yéen ay ñaan. <laughs> merci beaucoup Ndiobo. <laughs> yéen a ña ah, a ña ah. ñun ñu si mbooy gi comme nag nga loolu baax la comme yaa ngi ci mbooy gi ñu si mbooy gis nga sama ah. li ma waxoon rek. ñoom daal saa ànd na ñoom ñëpp di doxal ba egsi fii nañ doxal rek dem. bu président Macky Sall demee ñu dem. président mais da nga ko war a tàccu parce que président Macky Sall kuy kilifa te bëgg réew mi da nga war a wax. du ma ko tàccu euh, wilaat ne ko nii. du ma ba léegi ñoo ànd lu ñu dugg ñoo ñu si dugal. mënuñoo ñëw ba fii dernier virage ñu naan ko yee eh, ñun ñu ngi dëpp dëppu ñu dem léegi loo bëgg léegi nañ ànd rek ñoom dem bu suuxee ñu ànd suux bu labee ñu ànd lab bu jàllee ñu ànd jàll loolu laa si doon wax jox hélas wax yàlla yomb na meilleur chroniqueur ci joxal hélas ak lu ñu la laaj doo ci indi lu leer leer de am nga may de alaaji noo gisee Wilane ñu bari tàccu nañ ko de dafa ngay bokk ci ñu koy tàcc wala dafa am les waxul waaw Wilane de jàpp naa ni kenn la ci ñu bari ñu war a wax seen wax peut-être jotagul. parce que ku ci nekk dana wax. jàpp nga ne kenn la ci non président Macky Sall du lii muy nekk nii di ko ruumandaat. Mm. am na ñu bari ñoo xamante ni bii duñ ci ànd ak moom de. ay Idrissa Seck ak ñoom non xaw ma en tout cas am na ñu bari ñoo xam ni duñ ci ànd ak moom duñ ko ci topp waaw. donte fi mu toll nii mi ngi loolu. Mm-hmm. peut-être nag ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo bokkoon <laughs> ñoo bokkoon seen parti ànd si kii ko nga xam ni moom rek loolu rek lañ yaakaar. Mm-hmm. ñooñu moom dinañ jéem a langaamu. di continuer mais dina am ñeneen ñu bari ñoo xam ni danañ génn duñu ànd ak moom ci lii nga xam ni moom lay euh, moom lay bëgg a wax mm-hmm. donc moo tax lii mu bëgg a dugg mm-hmm. ndam da cee amut mm-hmm. ci benn côté amul ndam lu mu ciy perdre rek moo ci ne moo tax képp ku ko bëgg lii ko wilaan wax loolu nga koy wax man jàpp naa ni wilaan mi ci ñi nga xam ni ñi ngi koy delloo si la ah. lii ko wilaan def. Mm. responsable yu bari nii lañ war a taxawee. Mm. teel ko koo xamal parce que bu ko teelut a xam maanaam bu ay wilaan di noppeek ñeneen di noppi day tax mu jàpp ni ñii ànd nañ ci li mu mm. bëgg. mais bu dee ay génn nga am dina tax mu delloo si waat xelam. retourner en arrière. comme ñu naan waxewul ci kàddu parti bi kii am lay wax. dañuy dañuy ruube. ci biir parti ba mooy tas. parce que ci biir parti socialiste am na ñoo xam ne gëmuñu troisième mandat ànduñu ci. si duñu ko duñu ci topp président Macky Sall mu hmm. neex ko ndax am na ñoo xam ñi ngi AFP duñ ko ci topp. si yaa ngi dégg. Hmm. coalition yooyu mu àndal yëpp am na ñoo xam duñ ko ci topp sax ci biir APR am na ñoo xam duñ ko ci topp. ñoo xamante ne bi ñoo àndoon démb daan xeex mais mënu ma ànd ak yow di xeex benn mbir. Hmm. nga ñëw wax ko waxati ko mu nekk ngëm-ngëm. ñu àndoon def ci lu ne ba nga falu. nga bëgg a wëlbati ko ne nag bon <laughs> la ma gëmoon yëpp teg naa ko fële. te ngeen ànd am na am na ñoo xam ni nag ma wax la leen de <laughs> am na ñoo xam ni du ñu ñenn ñii de parce que ak lu mu mën di demee seeni ngor permettre leen ñuy accepter yenn yi. Mhm. ak loo mën a yor. fekk nag yaa jàpp nañ ni yaa ngi ci dëgg. Mhm. mën nañoo nekk di ko am na koo xamante ni kii gëm na doxali du président gis nañ lu mu fi def. Mhm. tabax na fi ay stade. def na fi ay terre mu ngi ci BRT mu ngi ci leneen. bi Ablaye Wade di wax naan mënuñoo yeggale chantier bi ñii bu leen ko bàyyee bi Macky Sall ñëwee def na peut-être lu gën a raw li Ablaye Wade def ci chantier yi. ok te Ablaye Wade dane woon chantier bi gars yi mënuñu ko yeggale. donc nag na xam ni tamit foofu mu toll keneen ay ñëw yeggalewaat li nga xamante ni bii moom la def yaa ngi dégg. mais kenn du ne defu fi dara. waaye nag dafa am loo xamante ni bii moom euh, ñu bari duñ ci ànd ak moom te comme nii wilaan def. yeneen leader yi nga xamante ni bii. Hmm. ñu ngi ci yeneen parti jàpp nga dinañ génn nañ xam ni waxtu wi jot na pour ñoom bu waa ji waxul it ñu waxal ko jom ngir waa ji xam boppam. kon signal bi daal ko war na commencé. ah waaw war na commencé te gars yi dinañ génn ñu bari dinañ génn. Hmm. Idrissa Seck jàpp nga dina génn. non midi xamaluma ko daal. ñeen ñii laa man ñuy kii nag ñas ak ñoom ñëpp xamuluma ñoom. mais en tout cas am na ñoo xamante bi ñi ngi ànd ak ñoom. nekk ay responsable mais du ñu topp président Macky Sall ci lii. d'accord.